الحمد لله رب العالمين wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokk yi ñu ngi dellu si waxtaan ak yéen si seen waxtaanu koor muy shahru ramadan tudde ko minbar ramadan di leen nuyu bu baax di ñaan yàlla yal na yàlla dolli jàmm ci àddina bi mbokk yi yal na nu yàlla defal sutura bu baax yàlla moo moom jamono te moo koy tëral nu mu ko soobee xat-xat yeex yépp suñu muñee góorgóorlu toppal tegtali rek li mu naan sayaj'alu llahu ba'da usrin yusra ginnaaw jafe-jafe bu ne rek man yàlla danaa leen defal ak yombal kon yàlla nanu ko yàlla defal ayuha almushahidun weer wi ñu nekk di chahru ramadan mooy chahrul juud mooy chahru mudarasati alquran ci dars bi jiitu woon ci waxtaan yi wax nañ la lenn ci ngëneelu alquran tey nag ñu ñëw ci tabe gi war a am ci biir weeru koor ñu jële ci abdullah ibnu abbasin radiallahu anhu mu ne كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان mune ne yonent bi ku tabe won la waye tabe mi yeb bu weeru koor ñëwé daf ko daan multiplier daf ko daan yok lu mu daan def ben def na ko fukk moom yonent bi ci weeru koor mune hatta ngilaw njariñ li mu lay andil ci féex ma bal yeneen mune ne yonent bi moko gënon tabe mom sallallahu alayhi wasallam kon mbokk yu weer wi wéru tabe la weeru dimbalante la weeru jàppalante la mbokk yi bokk na ci tabe gi ñu war a tabe ci biir weeru koor i'anatu saimin walqaimin wazakirina ala taatihim kon nag ndimbal war na ci ñoom te boo leen dimbalee rek dafay mel ni am nga yoolu ñoom la ñu taxawee ci bëccëg boobale حتى ينتبه صلى الله عليه وسلم نمن فطر صائما فله مثل اجره من غير ان ينقص من اجر الصائم شيء كو جخ اجوار لو مو دوغي كوكو جخ لو مو دوغي رك لو مو ديمندكو تي كورغي لو مو مانا دون مو ني دافاي ملني يالا ديفال نالا يول بي واجوجو ام nga dolleex sa bos te kooram dara du ci wàññeeku mbokk yi weer wi weeru tabe la yàlla ubbi na bunt yërmandeem ci jaamam yépp ubbi bunti njëggalam ci jaamam yépp ubbi bunti goreel jaam ci safara ci jaamam yépp waaye rawatina ci laylatul qadri bëccëg bu ne yàlla dana goreel ci ay jaam kenn xamul nu ñu tol waye laylatul qadri ala yawati mo taxone yenente bi ne innama yarhamu llahu min ibadihi ruhama yàlla ci ay jaamam ñi am yërmande ci jaamam yi lay yërëm kon mbokk yi weeru jaayanteex sa borom mu ngi ni liñ naan wéru promotion la ñëw na nga def benn ñu fay la fukk ba def benn ñu fay la juróom ñaari téeméer weeru koor amul loolu yàlla nee ne toog leen koor nag maa koy jële sa bopp as-sawmu lii wa ana ajzi bi loolu rek doyoon na macha allah koor nag toog leen maa koy moom maa koy fayal sama bopp malaa yi ne ah duñ ko def mu ne déedéet bàyyi na léppam ngir man te moom bu ma laa bàyyeen teex moom muy bëgg rek mooy dama ko tàbbal aljana yàlla na ko defal ko ndëg weeru dolleeku yiw la mbokk yi mu ne biir aljana am na fa ay ay kër ay néeg yu yàlla waajal ñiy woor di def lu baax ñiy woor di leel ñam nit ñi ci wàllu ñam gis ngaa ñi daan góorgóorlu ñépp ci biir weeru koor di defar ay kafe ñi di defar ay meew ñi di defar di defar waaye tey jii situation bi mayew ko liñ naan situation nouvelle mesure nouvelle waaw kon dëkk koo man di dimbali rek fekk ko fa nga koy dimbalee nga dimbali ko fekk ko fa nga koy dimbalee nga dimbali ko su fa sa tànk jotewul nga yónni am koo délégué naka seetal ñoo ma mën a dimbali seetal ñi nga xamante ne soxla nañ dimbal ci koor gi nga jox leen ñu dimbale ko seetal boroom njaboot yi nga dimbali leen ba seen njaxare dana deñ kenn du xalaat ne tey fan lay jëlee lu ma doge waaw ah tey dëkk bii fan laay dem fu ma dem ñin ñi fatu nañ foo dem ñin ñaa ngi daw feebar bi foo dem ñin ñaa ngi nàngam waaw fan laay jëm ndekete yoo yàlla yebal na la yow jaamu yàlla bi mu néew mu bari nga yëkki la nga yor nga tek ko ci loxom wallahi gëñ na ne mbekté momu muy bég yàlla moko gëna gën a te yàlla mbektem ci yow du dara lu dul mu la aljana doli la barke doli lay teranga defal la am jéggal kon mbokk yi am na yoo xam ne julli man na la ko may waaye lay gën a gaaw mooy xettali nit ku nekk ci coona ci jafe-jafe ci walu lu mu dunde nga fexe ba dundal ko nga fexe ba lél ko ngir jëm yàlla subhanahu wa taala yonente bi daana wax ne man asbaha minkumul yawma saiman abu bakrin ne man man tabia minkumul yawma janaza abu bakrin ne man man tasaddaqa bi sadaqa abu bakrin ne man ku seeti ku tawat mu ne man mu ne loolu si ku mu daje rek yàlla dugal na la aljana gis nga leel nit ñam ni mu barkeele ba yenente bi lim ko ci yooyule le kon na góor góorgóorlu mbokk yi ci weeru taraanga bi weeru barke bi weeru tabe bi weeru yiw wi bul xeb dara bokk na ci ngëneel yi koor yooyu ci tabe nga dajale koor dajale sarax loolu far bàkkaar gënu ko gaaw dolleeku yiw gënu ko gaaw mbokk yi abu darda waaw dafa wax ne sallu fi zulmati leyli rakatayni li zulmati lqubur day leen julli ñaari rak bu guddee ci lëndëm gi ngir mu man leen musal ci lëndëmu bàmmeel suumu yawman shadidan xarrahu li xarri yawmi nushur tay de tàng na lol nga wor mu ne nga wor bés bobule ngir bés bo xamantene yawmal qiyam bejut bésu tangor la mu ne tasaddaqu bi sadaqatin li shar yawmin asir nga sarah sarah bo xamantene ngir bés bu tartaram la mu yawmal qiyam gis nga mbolem xetu yu yu bax yi fokay tudda rek dimbalinte daf ci bok moo xam sarax nga ko tudde moo xam hadiya nga ko tudde yaa xam tur woo ko jox rek ci def lu baax yàlla moom lu baax la nga def rek lay xool moo xam sarax la moo xam ndimbalinte la moo xam hadiya la yaa xam noo ko defee rek waaye weer wi mbokk yi nañu góorgóorlu ba bu mu ñu romb mukk te defa ñu ci yi woowule ndax yu baax yooyu ngay def mbokk yi tabe gi nga def léeg-léeg mu am ay wàññinteef yoo yëg yoo yëgul man nga xool benn mbir te la nga xool yàlla gërëmu ko man na toq sa nopp loo dégg te du noonale man nga wax te du noonale yooyu manquement yooyu le sarax la hadiya la jox nit lu mu lekke la jox nit lu mu dunde lu mu taxawoo njaboot yooyu def la koy faral mbokk yi loolu moo tax ngay gis weeru koor ci tabeem nit ñi ku nekk di jox sa mbokk sukkari koor ñii di ko yaatal ci anam bi yépp ñii jox nañ kii xaalis ñii jox nañ kii ay tissi ñii jox nañ kii ceeb ñii joxe diwlin ñii joxe café ñii joxe meew ñii joxe ay tissi ñii joxe yooyu yépp baax na waaye rek bu si am bu ci tegoo loo antanul am te loo koy def rek def ko innama nutimukum li wajhi llahi la nuridu minkum جزاء ولا شكورا دفناكو دنجر يال تا كين كاي جوخ صح دوكو وان نكو مالوكو تاني ديريت وان كو نكو لي تشفل لا سما ديغنتي خياو لي كولر لا سما ديغنتي خياو لي دي يالا موكو مولاكو جوخ موكو جارالا سي مان وان كو نكو لولو موم موكو موم بوك وي ويرو ويرو تابلا ويرو ديف يولا weeru def ngëneel la mbokk yi ci lu ngeen man na ngeen ko def yenente baa ngi ñuy wax ne am na juróom ñaar ñu yàlla di keral ëllëg yowmal qiyaam bokk na ci noonu le koo xamante ne nii tasaddaqa bi sadaqatin fa ahfaaha xatta la taalama shimaaluhu ma tunfiqu yaminuhu maanaam la ngay def nga def ko ngir yàlla bokk na ci كوي دف تا يالا دال تخ يالا دنا لا كيرال ألك تي كفارم يالا نكو يالا دفال كون جوخي مبوكي باخنا فيب واي ويرو كور على رواتي جوخي باخنا فيب واي بونيو تولو تي تارتار على رواتي مبوكي جوخي باخنا فيب واي بونيو نيكي تي نجاخاري ايكونومي نرميلونا نيت نياغي جاخلي كو ني ياغي داو غوش دروات واي يالا امنا لوم لا باخي ولله هزائن السماوات والارض خزينة ديدت خزائن la wax magasin asamaan ak ñu suuf yu ngeen xam yu ngeen xamul yàlla moo ko yor te du jeex day tibb rek di jox ay jaamam di seet nan ngeen koy doxale nan ngeen koy jëfandikoo nga gestu sa mbokk xelaat ne ah diw de borom njaboot la ah diw de sama wëllëre la ah diw de nangam la ah diw de nangam la diw de nangam la nga fekk ko fa nga koy fekk ne ko lii day yaa ko moom lii day sama wëllëranteex yow lii day sama cofeel sama digganteex yow lii day lii day lii day kon mbokk yi weeru promotion mu ngi nii mbokk yi weeru jaayante suñu borom mu ngi nii yonent bi doon na wax ne ku am ñaar benn bi gestu ci sa mbokk ku tane kenn na ko dimmali na ko bàyyi xel am na ñoo xam ne bu ñu xëyee ñu ngi toog yàlla defal na leen ngëneel seen lépp mat na kooku nañu ko ñaanal yàlla xéewalam googu sax ta mu barkeel ndax zalika fadlullah yutihi man yasha bul gis nit di dem rek yor otoom wala nangamam wala yor xéewalam nga ne ñi yéguñu li nit ñi di yëg aha kay yëg na ko mais zalika fadlullah ñaanal ko yàlla xéewal gi sax waaye yow it la la yàlla nattoo nga muñe ko loolo ku lay dimbali it bul am rëy ci moom walla mu jox la ngay seet lan la la jox diw day diw ko ëppale waaye moom ma mu ëppale sax la waa ma waaj a jox moom moo ko ëppale kii dafa nay déedéet nit du fakk jëf luñ la jox rek sant ko boroom ñaanal ko jàppal ne rëy na ci moom ndax innamal a'malu binniyat yéene ba mu am xamuloo nu mu tol ci yàlla kon nañu dimbalinte mbokk yi ci biir weeru koor kon nag nañu góorgóorlu mbokk yi weer wi daal weeru yërmande la ndax yonent bi mu ngi wax ne maa yusbixu al ibaadu illa fihi malakaani ينزلان فيقول احدهما اللهم ات منفقا حلفا كنان كنان اللهم ati mumsikan talafa muttafaqun alayhi ñi ne sa wàllu zakat la wàcc mooy farata bi waaye mbooleem def yu baax rek waaye zakat moom dafa am baneen biram kon kii joxe am na toujours malaaka muy taxaw naan yàlla yàlla nga ko barkeelal li des bu la ko waaji laa wax sax malaaka ma taxaw na di la ko ñaanal te ñoom yàlla du delloo seen ñaan du delloo seen ñaan kon nag mbokk yi yal na nu yàlla dimbali defal ñu tawfiix ñu xam ne weer wi weeru def lu baax la yal na nu yàlla defal tawfiix àddina bi yàlla na fi yàlla def jàmm su ko defee duñ mën a tëj te joxuñu leen yóbbalu bés bi da ngeen góorlu bu baax mooy di nemmeeku ñi ngeen tane di nemmeeku ñi ngeen tane bul xeeb dara loo xamante ne ni mën nga ko jox bul ne lii de rus naa ko fa yóbbu déedéet yóbbu ko fa amaana boobu nga neen xalaat naan rus naa ko fa yóbbu sax mooy gën la ngay yaakaar ba naw jëf jëne lii bu ma ko fa yóbboo mu bég amaana ba nga doon wax naan rus naa ko fa yóbbu boobu la yàlla di nangu kon bu leen xeb dara lu waay man rek dimbalee ko sa mbokk dimbalee ko sa dëkkandoo dimbalee ko sa mbokk jullit su ko defee yàlla rek defal ñu tawfiq wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu